Euh, ñu ngi nii ak Amina Poté euh, ci man la jaara ci chaîne Poté yi donc dañ doon bàyyi rek pour Amina wax tey li mu yëg ci bés bi ak euh, tey bésu mariage am nan nan la ko dundee. soxna jaara maa ngi lay nuyu di la sant bu baax di rafetlu sa teewaay fii di la ñaanal yàlla na la yàlla di mosal ci métier mi te musal la ci ndax dafa xaw a doy waa ah, macha allah li ñuy wax mooy kontaan nañ comme chaque jour ndax souvent ñaan bu ëppee rek sonal borom. mën naa am li ñu suñu waajur ñaanal moo tax mu demee nii ba tax na macha allah euh, moo tax dañ leen di ñaanal ñoom yal na leen yàlla xare àjjana ñi fi ne mu bàyyi leen fi euh, di leen wax ne leen Sénégal yëpp kontaan naa ci yéen ah, ñi nga xamante ne ñi ngi topp chaque jour suñu ay affaire ñi ngi bég ci yéen di leen ñaanal jàmm wax dëgg fa yàlla tey amuñ sax lu ñu war a wax parce que chaque jour ñi ngi wax ak yéen kon yaakaar naa li ñuy wax mooy delluwaat di leen baalu àq di leen baal parce que buñ ne ñi ngi baalu ñi ngi baalu ñi nga xam ne ñin ñi ngi leen di tooñ waaye buñ ne ñi ngi jéggale ñi ngi jéggal ñi xamul yii nag euh, mën ngeen ko am ci Poté yi euh, mën ngeen am lépp en live ci kaw ngeen topp ñu ci chaîne YouTube boobu nga xam ne mooy Poté yi dara du leen rëcc incha allahu rabbi parce que ñun nag yéen benn lañ moo tax chaque jour lu ñu am dañ koy bokk ak yéen sur Poté yi jërëjëf sama jaara. jërëjëf Amina sañ sa bi rafet eh, sa bis bii du sens mérite la ci yow ndax li ñuy toppee doomi buur yaa ngi ci yow. waaye li ñuy toppe doomi garmi ngi ci yow bu méttee goreel ba ñu weg la ndax juddu bu ndonom du ko jaaxal yax bu rey ci penc mu mag lay bawoo yaa bëgg sa yaay ba mu jeex yaa sagal sa baay yaa bëgg sa néegu yaay sama doom jee sama doom jee sama doom ji ñàkkuloo jom te sa néegu yaay dundool mooy loo baax amina yàlla bu la baax mooy yàlla na nga yàgg ba nga juddoo ba tey benn maa la ngay bañ ci sa bopp muy maa la gën a réew muy maa la gën a bon muy maa la gën a xamadi lool rek ngay mos sa bañ waaye maa fi gën maa fi gën yaay sama yaay a baax sama baay a baax maa mag baax loolu yomb na lool bu la neexoon bi nga màggee nga xottiwaat say kayit judduwaat te kenn du la mën a waxal dara ndax danga yar sa bopp te waaye sama doom ji ku la ma sa teg loxo ni la kaay ci mbon nga ni ko teggil laaw la cat subaa na ma làmmiñ laaw la ma pexem noonu yaa bëgg sa ndey ba mu jeex e waaye sama doom ji yaa bëgg faatu ba mu jeex bu doon faj rek sa yaay du dem yóbbu nga ko États-Unis yóbbu nga ko France yóbbu nga ko Angleterre buñ dootul miim te bàkkuwoo yaay faat saalix yaa bëgg borom Tuuba ba mu jeex balay sa buri yaa bëgg Serigne Saliou Mbacké balay sama doom ji yow ku la woo Serigne Saliou daal di ko wuyu ewaay jiitu nga leen jiitu nga leen jiitu boo doon góor dangay sol manto yaa ma sa doon jàmbaar sa baay waaye tey bi ngay jigéen yaa ngi faj gàcce di bañ lu ñaaw ñaaw ajar ndey gay daaw ba sa mook faatu sa bokk benn yaa sama doom jee sama doom ji bu ma bakk du ma bàyyi benn yoon ndax ko ma sa jàpp téye ko mosoo cee jot benn yoon waaye nag la la leer ni maa baax jar tabakkoo maa baax jar tabakkoo maay def lu baax jar tabakkoo ndax noo mel nit ñee ko gën a xam say mbokk la garam moo tax kula la garam wàccul yoon walaaw la cat ci sama doom ji e waay dama bu fa doon dem toppatoo nday doon tax dem tere dem kon sa yaay du dem da ko koo teral teral teral teral ba faatu kontante moo ko tax a gàttu fan sax du fa du lal du saakuy ceeb du orange ak pomme du or du ay milliards loo tegu ci sa loxoom day amul. na teewe ko nga di ko sagal ba jëbal ko tey Seydina Muhammad sama doom ji yàlla na nga yeggale sa sago waaye nag dama mu Moussa Diouf mii dina xam ni sànni wu pase tam de te ñi fi jaar ñëpp a ngi toog sa ginnaaw di la gërëm di la ñaanal ñoog seen i bokk ak seen yaay kenn merewu la laaw la cat sa sëy bi yàlla na barkeel yàlla na nga barkeel barkeel. yal na nga barkeel barkeel yal nga barkeel barkeel ci barke Seydina Muhammad kenn merewul a laaw la cat ku ca bokk boole nga ko ca ku ca bokkul woo nga ko ba mu ñëw jaw daa di ko cay fallas ca biir macha allah yal la yàlla fal cat daraja yonent bi dëgg neexul dëggantaana neex nanu yeggale non na jaru ko jaru ko pom ya daa tu es trop belle. merci beaucoup félicitations yal na sëy bi barkeel yal na doon sa mujjantal sëy nga sax ci suñu borom sàmm la sàmm sa borom kër yee Diouf ladies Diouf sama doom ju sagal ndeyam yes madame Diouf madame Diouf mais tu es trop belle merci beaucoup félicitations yàlla na sëy bi barkeel yàlla na doon sa mujjantal sëy nga sax ci suñu borom sàmm la sàmm sa borom kër yee Diouf ladies Diouf trop belle. merci beaucoup félicitations yàlla na sëy bi barkeel yàlla na doon sa mujjantal sëy nga sax ci suñu borom sàmm la sàmm sa borom kër yee Diouf ladies Diouf Diouf. Miss sama doom ju sama ndeyam madame Diouf. yes madame Diouf. madame Diouf mais tu es trop belle. merci beaucoup félicitations yàlla na sëy bi barkeel yàlla na doon sa mujjantal sëy nga sax ci suñu borom sàmm la sàmm sa borom kër yee Diouf ladies Diouf daam allahumma amiin yàlla doon sa mujjantal sëy nga sax ci suñu borom sàmm la sàmm sa borom kër <laughs> <laughs> Diouf. Miss sama doom ju sama ndeyam madame Diouf. yes madame Diouf. madame Diouf mais tu es trop belle. merci beaucoup félicitations yàlla na sëy bi barkeel yàlla na doon sa mujjantal sëy nga sax ci suñu borom sàmm la sàmm sa borom kër yee Diouf ladies Diouf jëkkër ak ak yaram ndeyam yàlla na sëy bi barkeel yàlla na doon sa mujjantal sëy nga sax ci suñu borom sàmm la sàmm sa borom kër yee Diouf lay di Diouf